mbirum faj moom da cee ay lool xam naa jamono ji moom bu ko fekkee woon ñi publicité ci rajo yi naa maa ngi seen jiw mën naa faj nangam mën naa faj nangam ñooñu ñëpp moom seen seen business dana yàqu moom ah, tey nag xam naa garabu aw tàngoor wala siburu la ñu indil xumma des na ko wax siburu ci arab nee na daal da ngay wut sa ñaar sa rek wala sa ñetti xob waraqa moom mën naa nekk këyit mën naa nekk xob bu ko defee eh, nga bind ci nag bismillahi farrat bismillahi marrat bismillahi xallat bu ko defee ah, bët bu set nga jël wenn kayit def ko ci sa war na ko ànd ak ndox nag boo ko war na ànd ak ndox kon eh, sëriñ bi lii lii lay lii la joxe tey Ibnul Qayyim mii nag mooy fàttali ne bokk na ci sëriñ yi gën a mag ci sëriñ yi wahaabi nga xam ne ku mag ka muy ibnu taymiya ki moom yaakaar naa dongaam bu ko gën a siiw man xam ma wala bu ko gën a fes ci donga yi mu doon jàngal ku wahabi fonk la nag surtout sax boo dee xool seen bind yi boo ko dee xool euh, wahabi yi seen téere yi ak seen fatwa yi boo leen dee déglu da nga xam ne kii ci sëriñ si ñu gën a fonk la bokk euh, ku ku ku fonkoon moom ibnul qayyim ibnu taymiya moom du ko ndaw moom xam naa ne tur wu ne ko ci islam ñee Euh, am na saaxibul ixaata jot naa ko ci man sax am na ku ne ma am na ñu xam ñoo xam ne léeg-léeg boo ko jooy ngir bëgg guñ ko bëgg fii ma ne ci kolobaan dégg na fi ku man lu mu wax amatuma ci lu may seet lu ma leer ba mu ne moo ko wax rek jeex na waaye nag ku ci ku ci àgg fi jaawara àgg nag moom moom moom li ma gis moom bëriwut jaawara moom nee na ku ko mën a radd moom amut kenn mënu koo radd loolu nag moom daanaka boo ko xoolee mooy isma moom daanaka loolu moom su réewut ak nga ne maasum la moom koo xam ne loo wax mu ni su ko weddi moom loolu moom xoromu na tout loolu màggal gu ne nag dégg naa ko ci bu yëkkati gu ne euh, waaye àgg ci nag mu ni su ko raddu moom ci jaawara dong mu laa ko déggeegun moom ay jaawara <laughs> waaye xam naa daal seen sëriñ sii moom xoromu nañ lii daal laa bëgg ñu leeral ma bii kay fee maanaam yi ngay bind ak fi nga koy fan yi nga koy jëfandikoo fi nga koy jaarale li nga koy boolee léegi yii daal laa bëgg mu fekkee mën nañ ci am ay tegtal yu leer ci alxuraan wala sunna ñu leeral ma ko man na xam nga damaa weexoo dong waaye nag xulóowu ma de daay laaj rek